ni historien yi def wax waxtaanekati e histoire di def muy di tàmbulee ca jëkk muy gane àdduna moom tàmbulewut foofu moo tax na benn kilifa bu daan wax ni Serigne Touba li mu nu jiitoo mooy ay teggin la ñu ëppale ndax mboolem lañuy jàngat ci ci ci jëkk juddug yonante bi moom am njàng njàngatam tàmbale woo ko foofu def ko tàmbale rek ci laylatu mawlidin nabi guddi gi judd bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna ci la tàmbale ay waxam moom laylatu mahwi riyebi laylatu mahwi taabi wa tuhrisi taasumi bi xan na jaatu de wax ne léegi guddi la goo xam ni dafay far ay bàkkaar guddi la goo xam ni day far ay sikk guddi la goo xam ni ak pajug ajo ngi ci guddi la goo xam ni ak mucc ngi ci noonu la tàmbalee maa ni kon jës. nga xam la juddoo wala waaw. dara mel ne yooyu amalu ko solo waaye li ko li ko amal solo mooy judd gi li mu mën a andil. waaw kay bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane na àdduna foofu mu tàmbalee rek am na kilifay diine yoo xamante ne dañ daan wax ne li mu nu rawee mooy ay teggin la ñu ëppale waaw muy tàmbali tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak juddoom mu tudd ko waaye bi mu ko tuddoo it la ca am ca ay xar baax mu tuddaale ko loolu lépp dafa am lu mu nu jubloo jàngal ñun dañuy jàngal kan mooy yem yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan mooy jëmm ji nga xam ni yàlla daf ko wàccee ci kaw suuf ngir mu xet li mu def ci jafe-jafe yi ñu daan dund mu mel ni mboolem xar baax gu am ci guddi googu yonente bi sallallahu alayhi wasallam juddoo sëriñ bi daf ko leer loolu mooy tomb bu njëkk mu dem ba ci biir mu tagg yonente bi ci bindu boppam ndax suñ boroom dafa xereñ ni mu ko defalee bind bu rafet ci kaw noonu la dafa defee ay jikkoom mu rafete noonu moom sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi tagg ko ci mboolem lu ñuy taggee nit rek tagge na ko yonent bi sallallahu na ko ci bind tagg mi ngi tàmbalee ci wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wal tusallim ni ko moom moo kawe mbindee fii ci jikko ni mu leen kawee ci bind bi mu demee bay tudd euh, maanaam bind bu rafet bi ko suñu borom bind mi ngi ko tàmbalee ci xat kaana ذا توسط في القد جال السطوط ولم يكن بالمفرط ولم يكن بعدم di wax ni suñu borom daf ko bind mu doon koo xam ne dafa digg dóomu mag ñi sëriñ bi yarit magi sëriñ tubaay dégg loolu am njàngilem ndax noonu mu tënkee yonente bi ci ni gàttul woon guddul woon ëppul woon ñuul ku xeesul mokkal nañ bayidu sëriñ Moussa Ka boo xam ne dafa mel ni rek noonu sëñ bi waxee rek daf ko wax ci wolof bu leer muy gàttul guddul xëyasuloon ñuulul yaram war a tax ci yaram yee mat sëkk buy dox sut leen la waaw mu doon lu xat baax xat baax ni léegi noonu la ko sëriñ bi gis na yaakaar naa indi na ci lu mat fukki bayit ak nangam yoo xam ne bindub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ci tagg gannaaw bi mu andi ay jikkoom jikko yi ko ngi ko tàmbalee ci waxuwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi shiyaan mu wax ni jëmm jooji mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom waxut waxut ka nga xam ne dafay jéem a ñaawal yonente bi kooka moom sëriñ bi waxut ak lay waxal ngir xamal nu kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu defee bu baax li am solo ci nun ñun mooy ñun ñu déglu am njàngaleem ka nga xam nag da koy ñaawal ñu jàpp ni boppam lay ñaawal waaye ñaawlu ko moom danoo xamal ne yonent bi mooy ki gën a mat ci mi defi ci bind ak ci daal di wax ne ku mel ni moom mësta feeñ mukk ci mbindeef fii te dootu feeñati ba abadan mukk ci mbindeef yi te dootu feeñati mukk daal di nag tàmbali nag di dugg ci jikko yi mi ngi tàmbalee ci ahmaduna rahmatuna muy rahma تسن برم تقوتي القرآن رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سري بمي تقي انت بسنة دون أحمدنا رحمتنا على وخ سن أحمد مي موي سن يرماني دارني حامدنا نعمتنا موي tuddee حامد xaamit موي سن خيول sunu xéewal te muy xéewal it nag ndax lan la yonente bi fekkoon ci kaw suuf ak fan la jëlee adduna bi ak fan la ko yóbbu da nga xam ne xéewalu waxuma la sax xéewalu jullit yi waaye xéewalu ko adduna bépp la mu ne niamatuna daal ni mahmuduna farhatuna mu tuddee ko mahmud ni mooy sunu mbégte mu tàgg ko ci beneen jikko bu am solo muy aljoodu ak tab wal joodu musri diyami mu ne ak tab bu bu xeeb diyam bu ñu koy wax dañ naan mooy ay taw yu tëppale tëppale une semaine di taw léegi lam war a mën a andil adduna bi ci ci ci naataange tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na loolu waaw dépassé na loolu moo jël musa diyam léegi noonu la ko tàggee ci bind noonu la ko tàggee ci jikko noonu dafa mel ne jas bu lu xar baax la nag ndax dafa mel ne da ci résumé histoire yonente bi sallallahu alayhi ndax bi loolu jàllee tudd na ci xasuutu Badar ويتقدق بيامي نحن إننا قد قام خير البشر وسط خيار الزمر إلى ذوي التكبر كالبدر وسط أنجم آه. من الجمني كي جنت من في من جوب تدق كل اللي جم تنيني دون غير لك ملني أوير تبير بديو ما لا ملا لا يانتبه سلام سلام تبير صحابي آه، لكن أبنون لا رسيمي بدر بمجاخ waaye mu jàll it tudd gàddaay gi ba ci gàddaay gi yonte sansom ak xarbaax yi ci am wa min xawaariqa bada maa xaasa xaarul muqtada salla alayhi man hada bihi zawi tafahumi bi ankabootin andi ci jargoñ ba nga xam dafa ñëw lëndal yonte sansom maanaam xarbaax yi ci am ci gàddaay gi lépp mu tudd ko ba mu jàllee nag xasida googu mu daaneel ko ci tudd al isra wal miraaj noonu la ko tuddee ak yonente yim dajeel ak nañ ko jiitale xat baata yaxriqu tibaaq fi lleyli qaasida wifaaq wal ambiyaau bi ittifaaq laa qawhu bi takarrumi daa di wax ne yonente bi sanse mi ngi fanaan di xotti déele yi yonente yëpp daje nañu ak moom teral ko waxtaramu ñu teral ko wa qaddamu wa karramu wa staslamu tawaaduan wa azzamu li qadrihi almuxtaram تواضعوا إذا عرفوا رتبته وشرفه نون لتج ينتبه صلى الله عليه وسلم تي رجعن قبل رجعن بمودم بيجاخل تربينك مجاخل كوتش الخ